أي مصطفى وسليا يا إله وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القيد البشير وسليا يا إله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi mbokki sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñi ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di yëkkati ay kàddu muy sunuy soxna di waa kër maam Fawade Wele bu Italie ñu am xew-xew bu ñuy faral di def ci mois de décembre ñu fas yéene ren defaat ko incha allahu rabbi comme niñ ko daa defee di ci fas yéene aussi itam def jaayante boo xam ne dañ koy def ngir am sunu sawye boo xam ne dañ koy am fii ci Treviso pour mëna yar sunu njaboot ak mëna gëna sakku xam-xam suñu aliwo kon mo waral jotaay bi ñi ngi on ak képp kuy julit ñu lay o ci bës bi insha allah rabbi nga ñew jappal leen te kat ñoom wax dëgg yàllaam ah gannaaw yàlla ñoom ñoo ñuy puus ñuy dem su fekkoon ne du ñoom kon ñun taxaw nañ bu yàgg ndax lépp lu ñuy jéem ñoom ñoo yëkkati ñooy génne seen alal ñooy génne seen xalaat seeni man-man ba sotti kon tey bu ñu xewlee kenn ku nekk war ngaa sa yitte si bés bi ba am si réussite totale kon ñu ngi leen di bu baax di leen ñaanal yàlla seen bés bi yàlla ngeen si am ndam yàlla na yàlla def bés bi wuy si borom muy soxna maam Fawade Wele yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, gannaaw bi nu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi dellu si waat ñun jigéeni waa Treviso waa kër Maam Fa Wade bu Treviso di leen yëgalaat sunu bis biñ daan def at mu nekk décembre ren tamit nag ñu bëgg ko yaatal eh, def ci jaayante ci zawiye naa Cheikh bu Treviso di di ci woo mbokk yëpp bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñu jëkkee ko si sunu mbokki bopp yi waa kër Soxna Jaara di leen woo sunu mbokk yi ñu bokkal Treviso yëpp nga xam ni ñoo bokk lépp ñu ngi leen ci woo di woo sunu mbokku jullit yi nga xamante ni ñoo bokk Veneto waa Venezia Vicenza Verona bàyyiwuñu kenn di ko yëgal waa Italie yëpp fu waay nekk rek te du jullit am nga cër ci Mame Faa Wade Wele am nga am nga cër ci bis bi ñu ngi la ciy woo di sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla sunu borom yàlla nañu boole fekke ak tal te yàlla defal ñu ci xewal yu kawe suñu njort euh, lii taxoon ñuy sos bis bi pour xale yi bésu ñu koy def lu si gën a bari vingt vingt cinq décembre lañ koy def wala vingt quatre xale yi ñu di leen delloo si xam ne am nañ ndono loo xamante ni benn ndono ëpp ko moo taxoon ñu sàkku bis bi di ci bégal sunuy xale di leen xamal li ñu am lan la waaye tey seen présidente dafa nekk ci ay itte loolu moo tax ñëwul moo tax ma koy jottalil kàddoom waaye xale yi bis bi seen bis la ndonoli seen ndono la dañoo ñaan ëllëg ngeen di ko taxawee même bu ñuy fekkeet yéen ngeen yore euh, kii bi jiite jiite ñu toog di leen ñu toog di leen di leen jàppale macha allah yëf seen yëf la yëf seen yëf la ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen fekke boole ak tal te yàlla nandal leen ci xadara bi barke Seydou Dior sallallahu alayhi wa sallam. asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk jullit yi ñuy seetaan ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk di la nuyu di la ziar di nuyu jigéen ñi nga xam ne suñu mbokku jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Veneto bi di leen yëgal suñu bis bi nga xam ne mooy suñu takkusaanu Maam Fawade Wele Adja Khady jiite ñu ñu war koo def le 24 décembre incha allahu rabbi ñu ngi koy defee Istrana ci salle boobu nekk Istrana lañ koy defee ñu ci invité nag suñ mbokku jigéen ñi nga xam ne ñëpp daal ñu ngi fii ci Veneto bi di woo Adja Maada ñu ngi koy woo moom ak daayira Maam Fawade Wele yi nekk ci Veneto bi yëpp ñu ngi leen ciy woo comme Adja Khady ni mu ko waxee tamit ñu ngi woo suñu mbokku maam jaara bu sey yi fi nekk yëpp di wax ne daal bis bi dañ koo def ngir daayira maam fa wad bi nga nga xamné ñun ñu ko nekkal nekkal fi ñu ciy lu di ko def at bu jot ñu sakal ku bis bo xamné dañ fay daje buñ fa dajé kenn ku nekk lo am nga indi ko bu ko defé ñu jël lepp tek ko ci loxo Adja khadi mu yobbu ko senegal jënd ci ay piisam jox ko soxna si mu yóbbu ko gaaya bu ñu paree ñu def sa jaayante boo xam ne ñun tamit dañuy génne suñ participation ci kër gi nga xam ne zawiya bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg fii ci Treviso gi ñu def fa jaayante ñun jigéen ñi ak góor ñi ñëpp bépp jullit bu fa ñëw rek mu sóoraale ko ñu def jaayante ñoo ngi ciy woo ñëpp nag bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn góor jigéen mag ndaw yéen ñëpp ñu ngi leen fay woo di wax yàlla nañ yàlla defal fekke ak tal bi na nabi Moustapha lépp li nga xam ne mébét nañ ko ci bis boobu yàlla nañu yàlla defal suñuy poos loo xam ne dinañ fa nañ ko mën a eggale ci jàmm ak salaam ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne yàlla nañ ko fekke te tal ko yéen ñëpp ngeen ñëw ci jàmm ak salaam. comme ni ko soxna Ami waxee salle bi Israana la nekk quatre heures incha allah lañ koy lañ koy commencé conférencière bi nag Adja Soxna Kayra euh, bëgg ñoo waxtaanal ci góor gu sell gu màgg gi Seydina Cheikh ma leen di ñaan rek képp ku koy nooyee bul ko tardé te euh, Seydina Cheikh moom alalu jullit yëpp la kon bu ko kenn tardé bu ko benn jullit wuute. ñu war a animé ngont li nag. mooy Ibou Kayre ak groupe am macha allah ñu ngi dellu di woo mbokk yëpp fàttewuñu soxna Aïssatou Diop bu Tries ah, ñu ngi koy woo di woo daayira Tries yëpp nga xam ne ñoo bokk mbir mi macha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm.